waaw. et qu'il n'y a pas d'égalité de traitement. ci mm. population yi. Mm-hmm. amul ça n'existe pas. Mm-hmm. voilà mm. loolu c'est du voilà. la rêve la amul. Mm-hmm. te loolu war ci sax des fois di ci gëstu di ci waxtaan. lan moy véritablement démocratie yooyu dafa bax ñu ci wax ku nekk di joxe xalaatam ñu jëma a dans le fond parce que véritablement est-ce qu'une démocratie américaine pourrait ressembler à une démocratie sénégalaise Il y a des démocraties, pas une Il y a des démocraties. Donc quand on dit la démocratie, la machin, les droits de l'homme, est-ce que hmm. les droits de l'homme conçus par un Américain Allez où Allez, il y a un cours, pardon que je hmm, te coupe, il y a un cours que, je fais à des jeunes. Hmm. Il y a un programme de l'USAID qui s'appelle euh, le, programme YALI. Donc moi j'interviens dans ce programme. Yali, wow. Euh, Youth African Lead, Lead Homeland encore, mm. etc. Mais ce programme-là, ils amènent des Africains un peu mm. partout. Et puis nous, on les, pendant trois semaines qu'ils sont au Sénégal, nous les formons, mm. nous les expliquer. Maintenant, moi je... D'accord. non non ah, je fais je fais un. j'interviens. effet de trop ah, j'interviens dans ce programme. <laughs> j'interviens dans ce programme pour parler d'engagement citoyen. Mm-hmm. Mm. pour confirmer. le programme là. Mm-hmm. pour confirmer mm-hmm. je leur dis toujours que la démocratie est universelle mais son application est locale. Mm. Mm. xoolal écoutez nous au Sénégal mm. on n'ose pas voir les évêques s'impliquer dans la vie politique mais au Congo c'est permis monaco ne ko boo Nigéria élection bi, catholique le jiital élection bu musulman le c'est permis nous sommes constitution d'un côté et pourtant c'est démocratique boo mais Liban le premier ministre, il est chiite, le président de l'Assemblée nationale, il est non, il est sunnite, le premier président de l'Assemblée nationale, est chiite, que il est num euh, euh, sunnite. il est lui le président est chrétien le président de l'Assemblée nationale est chiite le premier ministre est sunnite c'est codifié mais c'est des concepts yoo il faut toujours utiliser nga tropicaliser ko moy manam nga adapter ko yow ak sa réalité. Mm-hmm. lolou la ñuy wax tropicaliser mm-hmm. bo jëlé nos officiers militaires. ku ci dem Saint-Cyr ku ci mënti dem école bu mu mënti doon. Mm-hmm. bo ñëwé Bango lañ lay yobbu application pendant un an. mom lañ tuddé tropicalisation. parce que effectivement luñ la jàngal fële ça peut ne pas correspondre. ak lu ngay dund fi voilà allez-y. Oh, voilà micro bi da nga ciy wax. Ah, voilà parce que quand même. Euh, quand on dit am na dossier yoo xam ne wala benn dossier boo xam ne dama ci teg sama tur. gerte gi dinaa ko bàyyi di teg fii il faut mhm. Mhm. Euh, gis nga Bassirou Diomaye Faye moom ci boppam. Mhm. bu mu ñëwee ci nguur gi léegi ça fait deux mois et am na dossier yu mu teg sur Sonko. am na dossier yoo xam ne teg na ko si kuréel. Diomaye. Diomaye par force parce que xam hmm. parce que dafa am yo xamné ay réalité réew mi am na daf ko da xam bi nga nek président de la république. Hmm. yow yaay xol nan ngay équilibrer mbir yi pour que réew mi nga mën ko organiser mu mun dox à peu près normalement. Hmm. ndax réew du dox mukk normalement. moo quand on parle de solution. voilà mais damay dama nan c'est c'est à la même c'est trop autant parce que solution amul ci état. amul. on trouve on cherche. c'est pas quelque chose de de de de figé. da ngay gérer. Hmm. un président de dafay gérer donc bu ñu waxee ni euh, euh, euh, mbir sàngam. Hmm. man maa ma ma maa koy conserver à la limite ça peut se comprendre sauf que comme vous l'avez dit tout ñuy cox loolu il faut yàlla dimbali la parce que wóor na ma ne ki ko wax Macky Sall bi muy wax loolu. Hmm. da ko wax ba pare rëccu ko. Ah parce que loolu xam na ko. xam na ko mais mais mais mais ay erreur la. moo tax. Euh, boo nekkee euh, euh, foofu la sax la xaw a laa xaw a xaw tout ñàkkee wóolu tuuti Ousmane Sonko parce que c'est un homme extrêmement impulsif mm-hmm. te buy wax yenn yi du ko tey mm. dafay rëcc mm-hmm. parce que rëcc ko moo tax mu taxaw nekk un premier ministre de la République mu fàtte ni moom donte président premier ministre la mm-hmm. mu ñëw pour en tant que patron de parti di wax leur xamante ne rapport avec euh, le gouvernement et tout. et tu mets avec la justice à la limite. secret d'état secret d'état mhm. hmm. di wax ak yow. donte dëgg la fois ça demande est-ce que dëgg hmm. est-ce que ça des fois du inventé. Hmm. comme c'est quelqu'un boo xam ne dafa y wax ay waay ne ci ay preuves. je me dis peut-être que ni dafa am ascendance si moom rek xëy na mu euh, euh, entre parenthèses social ko parce que peut-être que c'est pas vrai parce que beaucoup comme tout dit Ousmane Diagne dans sa personnalité en tant que nid,

dégg nga juba tu demandes mais xam nga bu noonu na ko def déglu rek fii état état bu bees la mënoon nga ko def tout de suite gars yi dégomé la ah nga dem rek te xam ne sa liggéey nga def c'est simple oh, il faut oh, partir honnêtement Sénégal la waay ah mais moo tax nag fii Sénégal la yéen man bu ngeen ma joxee fit ngeen ma yàqal Mm-hmm. dégg nga non fii boo fi fit fit loo da yàqule. Mm. yéen a ma yàqal. non ah, parce que moom moom fa ñu waroon convoqué gars yëpp. Ah. maanaam. de gouvernement tous les. il avait déjà dit. mu yàgg wax ñuy jox décret yi daal procureur de gouvernement. Mm. kookan la waaw. ba ko Macky wàccee. waaw. loolu la waxam xam nga xam nga. xam nga en réalité. gis nga non def leen nag sax xam nga xam nga man en réalité. Mm. dafa am yoo xam ne man dama ciy xaw a tey tuuti. Ousmane Diagne il a été procureur de la République sous Wade mm-hmm. defe naa moo remplacé woon Lansana Diaby waaw yaa ngi dégg mm-hmm. Ousmane Diagne nekk procureur mm-hmm. te jamono yooyu noonu kii nekkoon président OFNAC Seynabou Ndiaye Diakhaté moo nekkoon doyen des juges d'instruction C'est ba ñuy jàpp Idrissa Seck Seynabou Ndiaye Diakhaté la jàkkaarloo woon yaa ngi comprendre. Mm. donc Ousmane Diagne nekk na procureur ba 2013. Mm-hmm. lañ ko wàccee. Mm. jamonoy ab Ablaye Wade defe naa 2006 ou 2007 ba 2013. Mm. bañ koy wàccee.

procureur général cour d'appel mm-hmm. yaa ngi dég. ñu né jëlé nañ ko cour d'appel parce que plainte bi Ousmane Sonko déposé contre maître El Hadj Diouf ak yooyu da ko mm-hmm. commencé instruire ñu ne ko bàyyil mu bañ ñu ko mm-hmm. mais xam nga justice dafa am lu ci neex maa ne boo procureur buñ la dakhé procureur fuñ lay affecté poste bu gëna a nga jëm ñu la impossible yaa un comprendre comme tey ni nii xoolal kii nekk président cour d'appel Amady Ba. Mm. Euh, Amadou Diouf plutôt. Amadou Diouf moy président cour d'appel. Mm. Boko ko cour d'appel Dakar affecté ko cour d'appel Thiès wala Kaolack wala Ziguinchor wala cour suprême. Mm. mais munoo ko impossible impossible. Mm-hmm. donc mom jëlee nañ ko fofu, yóbbu nañ ko cour suprême def nañ ko avocat général. Mm-hmm. dossier Ousmane Sonko ñëw na fa ñaar yoon. te si ñaar yoon yu fa dossier Ousmane Sonko ñëw Ousmane Diagne a pris une position contraire à la position de l'État bu de mhm. le rôle du procureur. Mhm. parce que le procureur est supposé soutenir la politique. exactement le gouvernement le gouvernement. Mhm. mais nag si justice système dañ la instruction bu la mënti jox tu es délié de toute instruction. Quel mënu le toppee dara ci donc il a plaidé. pour Ousmane Sonko. bañ ko layee bañ ko ñàkkee jox fiche dafa plaider pour ñu jox ko fiche. ba saaba si fay ko affaire bi ñëw ñu war ko àtte cour suprême. Mhm. dafa ne saba si fay lu mu àtte Ziguinchor mooy dëgg. Mhm. Oh. est-ce que ñu